asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa wér gu mbokk mi doon laaj ci wàllu xorom pale xëy na lim wax noonu jaar na fi jaaraat fi waaye xëy na fàttali gi rek ndax lu bari njëriñ la moom itam ma bokk ci yi nga xam ne des koy jëfandikoo ci anam gu bare bare bare bare te muy jaari yu bari gis nga dañ koy boole gi ñuy lekk di ko boole gi ñuy naan di ko boole gi ñuy fajoo ñuy toccame koog yu mel noonu ci wàllu yaram yi ci gën a bëri boo ci demee danga koy fekk ñu di ko jëfandikoo euh, lu siiwalee ci ay njëriñam ci yu bari ñu di ko booleeg surtout lu tàng di ko jëfandikoo wala meew <coughs> wala lu mel ni euh, ataaya ba kafe gi yëpp. ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne tey boo demee da nga koy fekk ñuy ko ciy jëfandikoo kon anam gu bari boo xam ne dañ koy jëfandikoo muy lu baax lu bari njëriñ lool te siiwee ko it te yàgg fi lool it xamees ko lu bare bari xëy na léegi la waaye bu njëkk ñi ko daa jëfandikoo ñu néew ndax booba jot yombul booba jëfandikoo gi daanaka ñi loxo jot seen gannaaw ñoo ko daan gën di jëfandikoo loolu danga naan sang yi wala buur yi mu jege la yaatu ba ku ne mën ci jot waaye nekkuloon lu demee noonu luñ fonkoon la it daan ko berndeel ñi nga xam ne tey ñu ñu fonk lañ di boole ci ñi ñu leen di berndeel ci seeni naan wala seeni lekk ñu di ko jëfandikoo kon lu bari ay njëriñ la surtout vitamines yi bari na ci trop vitamine C A K am na feer am na phosphore magnésium am na sodium calcium potassium manganèse yii yëpp xam te yooyu li tax ñu di ko tudd rek mooy nga xam ay njëriñam ndax loolu lenn lu ne am na lu may taxawee ci wàllu wér-gi-yaram loo xam ne su ko yaram manqué rek da nga gis lu ciy feeñ waaye su ko amee da nga gis lu mu koy jëriñ lu bare bare bari eh, bokk na ci njëriñam surtout li nga xam ne moo gën a ëpp ëpp njëriñ mooy dëgëral ak kaaraange yaram mooy soldaar yaram noonu su ko nit ki jëfandikoo moo xam jëfandikoo yu nag bari na bari na bu la neexee doomam yooyu nga am ci genn wàllu kudd bu ndaw rek wala nga rek def ci li ngay nan boole ko sa café wala sa ataaya wala yu mel noonu bu la neexee comme lu mel ni meew man nga am poudre bi wala yu mel noonu nga coof ci lu yem su aju ci ni nga ko yëgee rek ni mooy safe yow nga def ci yëg ne saf na ci nga di ko jëfandikoo te ma bañ a ëpp nag ndax toujours it yooyu suñ koy jëfandikoo it daanaka la ñuy dem mooy ba tàbbi ci foo xamee xëy na day ëpp ëpp googu nag dañ cee bañ ndax day yem kon cof ci lu yem rek yëg ne lii tàng saf na ci mu di ko jëfandikoo ci wàllu yi mooy naan moo xam lu tàng la wala mu boole ko sax ci yi ñuy lekk dañ koy def suba dina ko sàmm soo ko boolee lu di ko jëfandikoo dina sàmm trop sa wàllu gu yaram sàmm sa kaara nga yaram ba yenn tawat yu bëree bëri du ak si ci yow waaw système humanitaire boobu nga xam ne tey mooy tax li nit kiy jëfandikoo yépp ci wàllu garab wala wàllu euh, lekk yi ba ci naan yi yépp mu mën a feeñ ci moom ndax toujours da nga gis koo xam ne dina jëfandikoo garab lu yàgg sax te loolu du feeñ ci moom gannaaw suñu borom nag dogalu suñu borom it loolu dana def dana ko def ñi nga xam ne seen kaaraange yaram yooyu daal néew doole mën nañuy jëfandikoo garab lu yàgg te duñ ko yëg te loolu koy def moo tax toujours nga gis kuy laaj affaire traitement nangam lii loo koy jëfandikoo fekk li tax léegi loolu doo ko mën a wax mooy lu mel noonu man nga àppal nit ki ci ñaari semaine mu def ko ñetti semaine ñeenti semaine tudd ko gis ndax li tax mooy bi muy jëfandikoo war a fekk système immunitaire boobu mooy karange soldaar yaram wi néew dool trop ba tax na ñooñu ñooy jël ferñeent yooyu ne ci xeex ak tawat bi mu génn loolu nag moom da koy dimbale ba da koy jox wér gu baax na lool ci wàllu surtout luy métti lakk-lakk métti yu ruux yaram yu ruux yooyu surtout lu mel ne articulation yooyu di métti wala yu mel noonu ba ci tawat romantisme yeeg yu mel noonu yooyu su ko nit ki jëfandikoo ba ci miskil yi sax baax na ci trop ndax dafa bokk ci yi nga xam ne day dalal day dalal aw méttit ba su ko nit ki jëfandikoo baax na lool antioxydant boobu mu waxoon nit ne moo ci nekk moo tax muy aar yenn xeeti tawat jàngoro yi ba tax nit ki mu am kaaraange mi yaram am kaaraange ba euh, du ko euh, euh, tawat du ko yeb su ko defee lu baax la lool ba tey ci wàllu noyyi surtout jafe-jafe wàllu xëtër pomme beeg yu mel noonu kooku moom it baax na ci trop. ba tax na su koy jëfandikoo surtout lu mel ne wàllu soj yooyu du ko yàpp wàllu grippe yi noonu du ko yàpp saqat yeeg ñu mel noonu ba tey ba ci wàllu asma asma yi mu itam baax na ci ba ci asma bi sax gis nga dañ koy digale boo ci amee ay doom rek wala kudd genn wàllu kudd ba ndaw rek nga def ko sa butéeli un litre cinq yi rek bàyyi ko ci mu fanaan ba xëy nga li ci naan xëy li ci kaas naan incha allah boo koy jëfandikoo rek jafe-jafe wàllu saqat yooyu wala wàllu soj yooyu yëpp mën na koy dimbale ba ci wàllu génétique yi lépp lu aju ci wàllu nooyi rek moom noonu la ci mel baax na ci trop ñi nga xam ne dañuy yëg toujours seen dënn yi di takk ñuy xaax xaax yooyu nga xam ne day takk surtout ba ci puut geeg yu mel noonu te mën naa am ay xeeti microbe wala yu mel ne wala xeeti tawat yooyu ma waxoon ci gannaaw yu koy dal yooyu yëpp bu koy jëfandikoo moom xorompole boobu lu jëm ci wàllu pat yi ñuy projet de socco yu ci gën a bari da koy am yi gën a dëppoo ak wér moo tax dafa bokk yi nga xam ne day dalal aw métit surtout bëñ gémmiñ nag surtout gémmiñ lu ci jar wala baalu bëñ bëñ bi mag ñi ñu bëree bëri daan nañ ko faje bëñ waaw surtout bëñ yi di métti nga baxal ko ba mu baax nga góox ko ab diir wala sax signe yooyu di métti wala ñuy nàcc wala pat yooyu nga xam ne day am ci biir gémmiñ yooyu yëpp it bu fekkee da ko am léegi da ko baxal ba mu mu góox ko ab diir noonu lu baax la lool ndax day dindi xeeti microbe yooyu nga xam ne tey ñuy indi jafe-jafe yooyu di laal te day daral aw métit ba ñu yiri métit toujours boo ko defee rek di euh, métit boobu day dal kon bokk na ci ay njëriñam moom itam dalal aw métit surtout ci wàllu bëñ ba ci wàllu jafe-jafe ñii di am jafe-jafe lekk mu rees noonu la mel ci ñoom baax na trop dina tax léegi nit ki li muy lekk di gaaw a rees dina gaz yooyu mooy ngelaw biir yooyu nga xam ne ñooñu seen biir yi jooy ak yu mel noonu ñoom itam baax na ci ñoom trop ba ci sax ñi nga xam ne seen biir day gaaw a daw lu mel noonu moom itam baax na ci trop yooyu yëpp su koy jëfandikoo suñu borom mën na koy defal baax na lool ba tey ci wàllu kër gi surtout wàllu kër gi waaw ndax ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu gaaw a yegg toujours ñu di ko jàmbat ñu gaaw a yegg wala sax ñi nga xam ne tey. dañul yëg seen yëg-yëg du bari te loolu sax dañ ko ciy tuumaal ndax toujours nga dégg ñu ko tuumaal naan ku koy jëfandikoo naanga waaye loolu wax la joo xam ne xëy na siiw na li may wax toujours da nga dégg rumeur yi xam ne day siiw waaye du wér bokkul ak li wér kon bokk na ci li nga xam ne lu baax la ci wàllu njaboot waatu war kër gi it lii may wax ni am na koo xam ne euh, joxoon na ma ci léegi da yu leer yoo xam ne nee na ma maam di daan na ko wax moom mostal naan lu waa taayal joo xam ne defu ko ci nee na ñun dañoo juddu fekk ko ci mu di ko jëfandiku te da ko daan wax ne ne yéen ngi nii ba tey maa ngi nii maa maa leen man te mu booba mu ngi ci juróom-ñett fukki at bokk na ci li nga xam ne tegtal yi nga xam ne dégg nañ ko ñu doon ko wax ne sëriñ bu mag bi sax daan wax leneen lim ci xam ci xorompal soo gaawoon a xam benn bëñam du dem kon gis nga ko loolu it bokk na ci yi nga xam ne tey da koy eh, jëriñ kon bokk na ci yi nga xam ne moom xorompali boobu. moo xam da koy am lu yem rek mu baxal ko noonu nga di ko naan par kaas wala sax mu boole ko meew wala sax lu muy naan kafe ak ataaya ak yu mel noonu naan yooyu yëpp mën na ci cox def ci baax na ci trop ba ci sax wàllu yemale suukar ci wàllu deret ñi nga xam ne sax même dañuy am gis ne seen suukar day yéeg buñ koy jëfandikoo baax na ci ñoom trop ba tax na jafe-jafe yooyu muy àndal baax na ci trop su koy jëfandikoo moom it mën na koy dimbale bu baax a baax a baax kon gis nga ko yooyu yëpp ak njëriñ yeneen sax yu bare bare bare bare yoo xam ne tey boo ko toppee xëy na da nga koy lim lu bare bari te du jeex kon gis nga loolu yëpp ay njëriñam yoo xam ne mu ngi koy am terewul nag ñu ngi koy tuumaal tuumaal yu métti li wax noonu toujours nga dégg ñu ko waxal loo xam ne moom ak li nga xam moo ci ne waaye nii ñu wax daal ku jëfandikoo jëfandikoo yem woo daal suñu mën na laa defal tawfeex yi ñu ci wax yëpp da ko gis. moo xam ci wàllu ñooñu di am ay ngelaw te loolu biir ngelaw yooyu gis nañ ñu baree bari ba ci wàllu fois bi sax setal setal fois boobu baax na ci trop su fekkee léegi dafa am ñenn ñu ngi yëg yenn xeeti point de côté yooyu di mitti suñ koy jëfandikoo mooy mën na leen dimbale bu baax ba ci wàllu yax gis nga même yax yi ba tey baax na ci trop waaw su ko nit ki jëfandikoo même ci jafe-jafe yooyu nga xam ne léegi day am ci wàllu yax yooyu yàlla mën na ko ci defal tawfe bu baax a baax a baax ba. Euh, ndax calcium boobu ñu wax ne moom la am boo ko nit kiy jëfandikoo mën na koy dimbale ba yaa xam yi mën a ba ci wàllu ulcère bi ngay gis ni waaw surtout wàllu ulcère moom baax na ci trop soo ko nit ki boolee ci li mooy naan ulcère du ko yàpp waaw su a attaaya la wala café wala lu mën a doon mu ne ko boole ci li nga xam ne da koy jëfandikoo suñu borom mën na koy defal tawfiq ba jafe-jafe yooyu nga xam ne tey mooy nekk ci wàllu biir yi baax na trop loolu mën na koy dimbale ba Euh, dina saafara loolu su ko defee nag loolu yëpp mu ngi noonu nekk njëriñam boole koog li ma wax noonu tu tuumaal yi ñu koy tuumaal yëpp yi ci gën a bëri ñu di ko wax nag ay rumeur la yoo xam ne nekkul xam naa daal jëfandikoo ci lu ëpp gi moom dañ koy bañ te loolu moom moog ndox sax ñoo ci yem ndox mu ñuul mi lu mu mën a doon bu kenn ki jëfandikoo lu ëpp rek dana ci gis ay lor yoo xam ne la mu ko doon jëriñ safaan bi la koy mujj indil moo tax kon bu ci def na ci def lu yem comp bu dee sunguf la mu comp tuuti def ci li muy naan ba yëg ne loolu saf na ci bu dee doom it mu noonu mën na koy booleeg meew it parce que baxal ko mu doj ko ci ndox ba mu bax mu def ci meew di ko jëfandikoo par subat balaa mooy lekk kooku su koy jëfandikoo yàlla mën na koy defal tawfeex bu baax a baax bu dee kuy sañe nag nga xam ne comme tawat yooyu di def sañe da diggéene deret nag kooku dañ ko moytu loolu ndax day tax deret bi daw normal daw daw subaa nag loolu bu koy jëfandikoo loolu mën na ko yokk moo tax subaa boo ko doon jëfandikoo ba àgg ci loolu day arrêté wax nañ sax ñi nga xam ne dañuy am opération bu ñu ko jegee fan yooyu ñu bëgg ko def nañ leen koy moytuloo ñu bañ ko def xëy na ba def loolu ba jéggi ko ñu door koy jëfandikoo ndax loolu dina tax muy nàcc bu daggee mu nàcc nàcc noo xam ne mën na euh, bari te loolu dañ koy bañ kon gis nga ko lii daal ay fàttali la ak i tegtal yoo xam ne xëy na ëpp na ko sax waaye comme tënkoon nañ ko fi ñu tënkaat ko rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah